ma ñu tëggee leen ñaari boor Lamine a ngi noonu. non alors Sénégal sama xarit bi. Lamine namoon a ngi moo tax dunu nga ay kilo mburu lay saraxe. Metsob. waaw wala ma Metsob mi lu xeeral woo koŋ. kilo mburu lañ lay jox ne la def ci beurre mbaa chocolat. soo booy bi kilo lañ ko jox mu réer ak moom. da nga réer booy. Antono kilo yaa ko lekk kilo. oh mortala dinu ay baguette la wala du di ah, ñëw ah Mersab mu ngi ñëw mu ñëw day ñëw lu lu lu xeere lu de mburu mu bees la mburu mu bees la mburu mi day xoyam xoyam boulangerie bi soriwul wala booy bi mburu mi nga nu ko daggee booy mburu mi dag ko par respect waaye actuellement wala mburu mi nga day xoyam xoyam met soba ngi noonu kaay ne andi ko nii lu xeere lu wow koŋ lu xeere lu wow koŋ met sob bokkum yaayu lu xeere lu wow koŋ yaay wàllu mbokkum yaay ama mais siyaar naa leen lépp jàmm naka bagage yi mhm. maa tawatu leen tawatu ñu naka moral daan nañ sa jëmm lépp rafet le moral est bon lépp lépp lépp carré mhm. tey noo gisee ama cent pour cent nee naa leen fëgg la Ama Baldé la indiwaat mhm. te loolu bu ko indee victoire xam mhm. nga doole xelam dal na mu ngi foofu mu ngi kaf mu ngi réer te moo ko mën mhm. laaj bu bëree Gris Bordeaux Gris Bordeaux aussi nekk le troisième kii nekk bi léegi amul victoire a ñëwaat ci làmb bëgg indiwaat Gris rek mais Gris amul sax jot Gris bëggul ñëw de <laughs> ndax 2015 ba léegi boo gëjee am ndam amul problème boobu pour 24 mu am ci ndam comprendre nga ah yéen yéen a bëgg Gris ñëwaat waaye Gris xam na ne dem na bu yàgg ku bëre ci synthétique bëre ci gazon ba ñëw bëre ndoog booy ci suuf hmm. war ngaa fair play xam ne mag nga man nag sama waay la sama gars yu bari moom lañ faral waaye grand la hmm. billahi booy bi da koy daj hmm. du benn mais ci xeex xeex Ama Baldé moo ko mën téeméeri junni Ama kawo gëma mu yàq làmbam Ama Baldé faalewul ay dañ ko mooñaale ay duma ay dóor booy dóor na Ama Baldé 46 coups. Mm. Ama dóor ko benn mu wàccal boppam. te Malick 60 coups la ko diggoon ci soixante ci une minute. Mm. une minute égale 60 secondes. Mm. mu ne ko chaque seconde dinaa la dóor benn coup. mu dóor ko 46 Ama di ko xool nii jaxran kooku gaynde la Gris Bordeaux yëngalul Ama Baldé. leer na leen leeru yàlla ni force Gris ba mu amoon ba muy am il y ans ci ginnaaw newatu fi. dañ bàyyi caaxaan met tey ñu xeeree ñu woo ko ñu waaw loolu Ama Baldé moom laa la wax ni comme Ama Baldé jaase la ba pare xeer la lépp luy konk rek moo koy toj bu dee koko Ama Baldé rek nga ragal te Gris Bordeaux koko la te jaasi baa ngi ñëw ci kawam dina génne lépp lu nekk ci jëmm mais feeberoon la wér moo waral moom changement du leneen ba pare bëgg na entraînement gëm na ko dinu mbooro Ama daf yéeg ba dinu xàmmee ko hmm? amul bàyyi de jaaraat Ama Baldé daf koy yéeg ba dinu xàmmee ko saa bu ñëwee ñu ne ko Baldé Baldé hmm? barki borom Tuubaa. kon tey mën nañ giri nar na jël coup. giri dañ koy grillé. ba pare grillé lépp luy foofu réseau. daan ko. mais eh, giri mi toog si face te moo ëpp doole am. giri boo doon noonu la mel. boo yi koy supporté ñoo baax rafet xol chaque année ñu may ko sens. giri moo am sens su sens. booy di ko may sens rek chaque jour. mais giri ci boppam moo la gën a xam mënul yëngal am a mais mel nga baal sa digg ak est-ce que mën ah, wax dama ne man dafa am loo xam ne nii. ñu naw benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. waaye ma xar sama jëmm man. def ko ñaar Ama Baldé genn wàll gi Wally Ballago Seck genn wàll. ma ngay def tournée pareegul waaye dama ko ne ma ñëw mu ne ma lu mu ñàkk la demal. yëkkati ñaari million ni ma am gën. dama ñëw ma jël bi avion wàcc. maa ko teel bu ñu yëngalee ba pare. lënd ma noppalu ñu feetu mardi maa ngi delluwaat ca tournée bi. waaye caaxaan de. gars yi fair play tubaab du moromu naar. mais ñi naan ku leen mugg Ama maa ah ngi. non Pagaye maa ngi laajte nax bi mooy première fois mu dem wala. mu ngi doog a dem. non njëkkoon njëkkoon tukki na dafa waaw man de bu doon man la. Mm-hmm. am naa visa ba pare. Mm-hmm. waxuma la su fekkoon ne visa bi France lañ koy mayee. Mm-hmm. ma dem jëli ko waaye comme Sénégal lañ koy mayee bu ko amee ba pare. damay bëre yëngal lundi ma doog a dem. donte li ngay wax foofu mën nga ko wax fii rek benn cinq minutes la nga wax xaw ma lan karang-karang yaa ngi dégg mën nga ko wax fii benn la waaye nag ku nekk ak sa tolluwaay waaye nag xam nga ñun tamit ñu koy ñaan yàlla mu dem ci jàmm rek ñëw ci jàmm loolu ndax amul lu muy wàññi aama non non xam nga ama ceddo la ama ceddo la tëgg bi tëgg bi ak xumbal bi loolu pour supporter la waaye bërëb bi ak victoire bi loolu ci Ama Baldé la dégg nga 14 heures ama génn bëre lu muy xaar mbalax loolu pour supporter yi la koy may bu Pagaye mbalax lu neex Ama feccal leen bu Pagaye nekkul Ama day dem bëri ji bëri lañ ko sant sant ñu ko fecc mais fecc tuus amul lu muy def ci mbër tuus nga wax bàq gin kiye tere ndawal gin kiye tere ndawal tooy na sëkk ci bàq te loolu ñëpp nañ ko tëgg man sax mën naa yow may filmé mën nga ko lu xeere waaw man ba léegi ah moom la ñuy xaar ama pare na ama ngi xëccoo dernier butéeli ama ngi xëccoo dernier butéeli ama ngi xëccoo dernier butéeli ama ak dernier butéeli ay waay te ama pare na de Ndiémé bi mos ah, ama kanam gi mu indi ama kanam gi mu indi ama kanam gi mu indi tey te te te te ama ñaata butéel lay xëppoo ci buntu bi la ilaha illallah ama ngi xëppoo rek rek waaye xale yi ruu kan ngeen di jël hee bàyyi leen gis ruu la ilaha illallah oh Ama Baldé en confiance Ama Baldé ama yéen amaa ngi noonu ay waay amaa ngi noonu ñu koy xëpp Ama ngi noonu ñu gis amaa ñu koy xëpp ay waay Ama pare na